salaamu alayka yaa di wa yaa sanade kuréere say bir na dégloo seex bi naam saara jamiwu jiili ka yaa leen faw xa démb ba tey ngir yeg sa baaye fi sos baax yi no am saara moo muñ taxaw woote feeñal bamba ñépp diraam tey leer gi jolli na yaa moom say ngëneel saara yow leer nga leeral sunu askan ko ak si fa yow sama ya dàqe fa moom yaaram bi naam saa law laa kale kun na habadan moo tax nu am mayi fii baawaan ba tey saara moo muñ taxaw sonnu liggéey xiif fa moom a kamar Cheikh Ibra jébbulu ànd ak ruuya naam saara xët say doo ma wax ma boobu waa dama géey waa Asan Njaay Cheikh bi naam saara lii sax du betteel fi des laa defar fa aras say lay ngëneel boole laak sam kéew bi naam saar doo siise doo dàqe ñaawoo ko saar jërëjëf dundal nga askan wi rusloo nu naam saar noon alayhi ñaan naa ñu may la fanam wa ngay dimbaane fi nun yaaram bi naam saar jasaaka yaa xillu راي مولاك خير الجزاء ومنى دارك أولاك جزاك يا خلوب راهم مولاك خير الجزاء ومنى دارك أولاك فاحلم بأنك هند دسور دنا بدا وذاك ربحك في دنيا وأخراك فدوا على السدح والإخلاص مجيدا fi sirri wal jahri kay tan moo ma. lépp lu muy tàmbali. ma koy tàmbalee ci ki nga xamante ni moo fi toogal Serigne Touba muy Cheikh Sidi El Mokhtar ibnu Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xaadimu Rasul yàlla na fi yàgg te wér ñu jot ndigalam tàmbali tey jii bëgg a ubbi bi nga xamante ni ci ndigalal Serigne Saalihu la dale woon mu jotoon ko sunu wayjur sëriñ Basiru Saar jaamu sëriñ Tuubaa àndoon ko ak wëllëreem ak mbokku taalibeem ak xaritam di sëriñ Maxtaar Jaxate moom Xaadimu Rasuul Cheikh Saalihu Mbàkke noo ngi nuyu sëriñ Cheikh Sidiyal Moxtaar di nuyu sëriñ sang Sarr mi nga xamante ni moo fi toog toogaayu sëriñ Basiiru Sarr jaamu sëriñ Tuubaa ak mboole seen rakkam yépp yu góor yi ak yu jigéen di nuyu tamit bokki taalibe yi fi teew yépp góor ak jigéen di nuyu kilifa yi ak sëriñ daara yi ak chef de quartier yi nuyoo bi ñoo koy jox ki nga xamante ni moo fi toogal administration bi di meeru Touba muy sëriñ ab Lahad Diakhaté astafurlah Serigne Abdou Lahad Ka ak chef de village bu Touba mosquée Serigne ab laat Diakhaté waaye nag sëriñ ab Lahad Ka dafa am ngant ndax dafa am waajuram woo xamante ni daf fee bàyyi ko ñoo ko koy jaal te di ko ñaanal yàlla sunu borom xaare ko àjjana waaye yabal na fi it sëriñ Serigne Moussa mu ànd ak Serigne ñu dikk teewal fi fii sëriñ Abdou Lahad mi nekk maire de la commune de Touba Mosquée nuyoo bi jox nañ ko bu baax sëriñ Fallou Jaxate mi nga xamante ne moom it kenn la ci kër gi ah taxaw woon it liggéey bii nga xamante ni mooy marché soxna Seynabu Jóob wayjuru sëriñ ba Basiiru Saar jaamu sëriñ Tuubaa ba tey ji liggéey bi mel nii ko sëriñ bi bëggee woon te loolu rek moo mës nekk moom bëgg-bëggam moo mës a nekk ak mébétam te loolu ci la defoon pas-pasam ba liggéey bi yegg na te liggéey bi tey jii ku fi teew jàkkaarloo moom xam ni kii ki ko liggéey liggéey na ko ak yéene kon yàlla na ko yàlla fayal bu loolu jàllee danañ jox kàddu yi ki nga xamante ni mooy le chef de village de Touba Lansar di Serigne Ahmadou Diop moom it mu jotal fi ay kàddu wax tamit ci mbirum village bi ak marché bi kon Serigne Ahmadou Diop bismillah bismillahi sama wax du gudd ndaxte tey li xew mooy dañuy ubbi marché Touba Lansar li ma ciy wax rekk témoignage bu gàtt la ci marché bi lu tax ñu doon xaar Serigne Makhtar Diakhaté laa leen doon bëgg a wax parce que sëñ Makhtar Diakhaté yàlla daf ko boole woon ak sëñ Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba yàlla daf ko boole sëñ Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba bi nga xamee ni marché bi bëgg nañ ko. sëriñ bi ne ma danga koy jaar ci yoon fa marché yi war a jaar ma bind benn lettre ci turu sëriñ bi jox ko président commu communauté rurale bi nekkoon sëñ Maxtaar Jaxate sëñ maxtar Jaxate tontuñu jàppale ñu ci liggéey bi lu looloo tax bu ñëwee fi taxaw moom mi tàmbale woon marché bi ñëw di ko ubbi dañ ci kontaan lool léegi bu loolu wéyee affaire marché bi duma ci wax sama adjoint bi di Assane Sène moo koy wax li may wax mooy affaire wu Touba Lansar te li may wax sax ay ñaxtu la rek mais mais ñaxtu taalibe lay doon du sori waaye dañoo bëgg nag suñu kilifa yi yëg ko ndax ñun dañoo jaaxle ñi ngi def fii benn centre bu ñuy traité les ordures waa suñ communauté bi nga xam ne moo nekk Espagne may nañu benn poste de santé bu ñuy taxaw fële ca 40 ba te loolu yépp xamuñu luy Tata xam nga lu tax amuñu benn route goudronnée bu ñëw Touba Lansar ca yaakaar naa ni poste de santé bi ñuy def ci 40 bi te sëriñ bi joxoon digal ni nañu tabax nañu goudronné 40 yi ñun waxuñu 30 mais am nañu 40 boo xam ne kenn goudronné loolu nag dañuy yëngal suñu tey bi sëriñ bi wàccee liggéey ba nëga ni du ma wax sax fàtte waaye dañoo mel ni dañoo fàtte Touba Lansar ndax ci programme màggal gi kenn di xalaat bind nañu lettre président commune bi sëñ Moussa bind nañ lettre depuis l'année dernière pour électrification quartier bi mais ba tey tontu amuñu tontu. bind nañu Sénélec directeur Sénélec ba léegi amuñu tontu bind nañu xale yi nekk ci kër gi di daan seen doole dañoo wut seen benn garage pour ku bëgg a ñëw Touba Lansar bind nañu lettre ça fait plus de huit mois wala neuf mois à la mairie mais kenn tontuwuñu ñu seet nag ñu demande kii représenté maire bi bu demee mu xool lii ma ko wax yëpp bu xoolee ci carnet Euh, ka carnet arrivé ak départ dina faj gis suñu lettre yi li ñu bëgg rek ku ñu tontu defal ñu suñu xol te bu ñuy def programme màggal ñu boole ci Touba Lansar nag parce que Touba Lansar jàmbaar moo fi nekkoon nag. jàmbaar moo fi nekkoon looloo tax man ci loolu rek laay wax li ci des dama koy bàyyi Assane mu wax affaire marché. chef de village de Touba Lansar jërëjëf wax nga lu jara wax. ndax loolu aussi tamit intérêt population bi la ndax dañ cee bokk kon sunu wàll it war nañ ko cee jot ndax jàmbaar lañu àndaloon ju mag yoo xamante ni ñu daan ko wax Serigne Bassirou saar jaamu Serigne Touba képp ku fi toogal Serigne Touba làq na sa ngërëm te it ku ko xamul tamit dégg nga ko mu nekkoon jàmbaar joo xamante ni Serigne Touba rekk ko ñoroon te li nga wax ci wàllu marché bi. marché bi bi nga xamante ni sëriñ bi jot na ci ndigal am na soxna suñ doon wax Sagar Gueye moom la joxoon ndigalul ni ko doxal ca marché ba teg fa sa taabal moom kenn dong moo fi toogoon teg fi taabalam ba ay bokki taalibeem fekk si ko fi mu àndandoo feek ñoom ba dogalu sunu borom fekk ko fi kon moom tamit ñoo ngi koy ñaanal yàlla na sunu borom woyofal suuf ci kawam sëriñ Saalihu nag ak sëriñ Basiiru Saar loolu moom seen diggante moom dafay yàgg ndax sëriñ Saaliwu waxoon na ko Basiiru bu ma xamoon ni day marché bii tabaxoogul tabaxoon naa ko bu yàgg mu ñaanoon ko ndigal ni ko mbàkke noonu laa ko bëgge woon dama bëggoon bu sama njaboot jóge tabax ko loolee mu sàkk woon ñaanoon ko sëriñ Tuubaa sëriñ Saalihu moo tax njaboot gi jot ndigal loolu ci seen kilifa seen jur di seen xalifa bàyyi sëriñ sang ñu àndandoo takku ak seeni bokki taalibe taxawal marché bi ba liggéey bi yegg fii tey kon ñoom tamit am nañ waaw góor am nañ jaajëf bi nga xamante ni sëriñ Ahmadou Diop chef de village de Touba wax na ba yeggal kon kàddu yi daañu ko jox entrepreneur bi nga xamante ni moom moo yoroon liggéey bi liggéey ko ba liggéey bi yegg tey jii ñuy def inauguration bi ah muy sëriñ Fallou Diakhaté. salaamaaleykum wa rahmatullah. boole mi maa ngi leen di nuyu di sant yàlla suñu boroom eh, di julli ci yonent bi sallallahu di ñaanal sëriñ Saliou Mbacké fa mu nekk suñu borom yokk ay leeram moog sëñ Bassirou Sarr mi nga xamante ni lépp tey jii moom la. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ni liggéey bi bi ñu ko tàmbalee euh, sëñ ma Diop moo defoon lettre bi waxoon na ko léegi mu ngi ko defoon 2007 boobu ba léegi ñu ngi koy accordé ci 2007 bi. bi nga xamante ni tam accordé na ko sëñ Bassirou Sarr moom ma woo ma ñëw ma ñëw toog ci keppaaram gu rafet gële mu wax ak man dénk ma liggéey bi ni ma am na yaakaar ni yéen. doy nga ma ci loo ci def doy na ma ci kon euh, dama la koy dënk bi ma dënkee liggéey bi nag sëñ Maxtaar Jaxate yi boppam mu ngi nii toog moo ma ni sëñ Fallou dafa am lu ma lay dënk euh, sëriñ Bassirou Sarr ku koy liggéeyal bul bëgg ci liggéey bi dara li tax ma wax la loolu tam moo di sëñ Bassirou Sarr boo ko liggéeyee li nga ko liggéeyal da koy yëkkati tax teg ko ci loxoy sëñ Saliou Mbacké te bu ko tegee ci loxoy sëñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou Mbacke dina ko teg ci loxo yi sëriñ Touba te bu jot bu àggee ci yooyu loxo ni ngeen jàppale liggéey bi mu ngi ci yàlla suñu boroom te boo dee seen ni euh, liggéey bi nekk na liggéey boo xam ni liggéey bu mbetteel la ndax bi nga xamante ni liggéey bi mi ngi nii boo dee seet ni coût bi àggul ci 18 millions te terrain bi ay janj woon janj yi nga xamante ni dañu mujj wut ay peel ñu maasale terrain bi depuis fondation ba l'électrification ba plombier donc def nañ ko ci liggéey bi liggéey bi nag damay sant ñi nga xamante ni ñoo ma ci doon jàppale bu baax a baax muy sëriñ sàng mee toog di kilifa gi di sëñ Modou Diop di sëñ Cheikh Sarr di sëñ Xaadim di euh, ilimaan mi fi toog mu bu quartier bi di ja di waa Lansar yëpp ndax kenn nanguwul dugg ci maal bi ñu ngi yegg seen i mbaar ci bëcc ci naaj wi ñu ngi yegg seen i mbaar ci bëcc ñuy tawte ci biti mais kenn nanguwul dugg ci maal bi te noppiwul kon loolu ak yar la yar la goo xamante ni sëñ Bassirou Sarr moo ko def ci dëkk bi te sëñ Bassirou Sarr li ma ci dénkoon tam mu di nee na ma dama bëgg ñu woyofal ko waa dëkk bi ndax waa dëkk bi sama njaboot lañu waaye nañ def tuuti rek bu ñu defee tuuti ba ci kanam moom mu àggale li ci des lépp far yàlla def lii mu def tey moo tax waa dëkk bi tënku ci seen bopp fajaru fas yéene àggaleel seen bopp seen liggéey bii li ma sëñ Maxtaar Jaxate dénkoon nag def naa ko ci fulla ak fayda def naa ko aussi ci ci Pastef ba li ma ci bëggoon lépp am naa ko ndax sonn sonn sonn naa ci trop waaye li tax ma sonn ci itam dénk gi ñu ma xamante ni dénk nañ ma ko ak li nga xamante moom lañ ma ci wax loolu moo tax mu jaral ma lépp ndax mënoon naa cee def sax sama këru bopp mën naa ko def ci liggéey bii ndax jaral na ma ko ndax sëñ Bassirou Sarr da di nit koo xamante ni du ma ko kenn du ko présenté dafa jeex takk ci Serigne Saliou Mbacke jeex takk ci Serigne Touba may woo kenn toogu fa man rek maa fa toogoon du sant bu baax nag sëñ Modou Diop ndax Pastef Pastef la ci def sëriñ Saliou Sarr Pastef la fi def ñëwul waaye ku am fula la ku am fayda la ku am maqaama la ku bëgg quartier bi la ndax sa su ne de ñëw na ba sama kër ñetti yoon naan ma ñu ngi lay sant loo mën ci liggéey bi rek def ko te xam ne ni doo ko dëccu xam naa duma mun a euh, wax lépp ndax bari na ñoo xamante ni ñu ngi wax ñu war ñoo wax moo tax dama yemale sama kàddu foofu di sant bu baax tam sëñ Moussa Ndiaye comité rural ak ñi mu àndal ndax euh, wax dëgg yàlla jàmbaar la sëñ Moussa mi toog jàmbaar la kenn du ko présenté kenn ci pastéefam ci murit saadix la ku bëgg lu baax la euh, ku sotti la ci Touba koo xam ne dafa jeex tàkk ci Touba la kon sëñ Ma Diop foofu laa yem di leen nuyu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu jërëjëf Assane jox nañ ñu pàkk bi noo ngi ciy liggéey booba ba tey ñoom ci liggéey ba tey jii nag xëy na nag am nañu rëq-rëq mënut a ñàkk ci benn liggéey nag liggéey boo fi gis dana am rëq-rëq bii nag moom ñoo ngi ñaan ci kattanu yàlla mu delloon fan nekkoon lépp nag marché yu jagaloo yi moo ko def ndax benn koñ ñetti marché ne fa kon ku ne xam ne nag waroon na mel dootu ni mel nag dootu ni mel loolu rek moom téye waaye lu ngeen lu ci laaj daanu ko jéem xëy na nag ca tëralin wa nan nu seetal nu mu gën ndax am na ñoo xam ne mën nañoo fay kaas-kaas léegi léegi mën nañoo fay am na ñoo xam ne mën nañoo xaajal waaye am na ñoo xam ne nag mënuñu génn wàll ga génn walaat ga mënuñu ko ndax doole yëmut foofu rek lañ bëgg nag waaw ay jigéen lañu rek nag ay jigéen lañu rek nag ngeen jàppale nu ndax jaamu Bamba kat ba mu nu koy def dane jox dem leen liggéey a yi jën ko njëkk a yóbbu dane ah man de dama leen ko war a delloo ñu ne ko déedéet saar man ma bëgg rek ngeen liggéey ci jariñu léegi nag ñoom ñoo dem ba àddina defaroo nii ba ne defar na nag loo xam ne kenn amu ko ndax defe naa masab jannatu sax nag melul nii nag wax dëgg yàlla <laughs> waaw masab jannatu nag sax ba ñuy sii ba ñuy wax melul nii kon ñu xam ne nag alal la ci dugg waaye alal jooju ñu ci dugg xam nañu ko waaye buñ ñu ko defalee ndànk-ndànk mën naa am jigéen ñi danañ dañu ko ñeme waaye buñ jógee rek jël fii fi fi tem bi tàmbalee rek dañu daal di ragal te mën nañ koo fay de lu ma leer la ndax sëñ Tuubaa bàyyiwuñ nag jigéen ñi sëñ Tuubaa bàyyiwu leen de wax dëgg yàlla ñuy ñaan di sàkku nag rek nu woyafal nu ko nan nu ko woyafal tegal nu ko ci ay ndànk-ndànk rek ba mu mën koo fay mu leer ma ne de am na nu muy demee rek danañ ko fay ci mel na at rek mën nañ ko ca fay jigéen ñi buñ nu buñ ci yoon mel na at nañ cee génn xaalis bi lu ma leer waaye nag dañuy may na ñu def ko ndànk-ndànk waaw ndànk-ndànk ñuy sant nag soxla si nga xam ne moo santoon marché bi di yaay sagar taxawoon ba nëgëni sii ñoo ngi taxaw nag ci tey ji nag muy neex muy naqar ñoo ngi fi te ñaan nag yàlla ngeen ñaanal ñu sàkkal ñu ci alxuraan ji fi ne ngeen ñaanal ñu ba marché bi delluwaat fa mu dellu woon waaw ñaan ñoo ngi sant nag jigéen ñi ñoo ngi santaat di wax ak yéen nag bu baax a baax wax ji jigéen ñee ko moom de jigéen ñi nag boo ñëwee ñoo di jàppale rek waaye li fiy liggéey fi jogee ñu fiy jógee ñun jigéen ñoo fi jële na ngeen dimbali nag sakkal ñu ko a ci loo xam ne dana oyof ci ñun ba danañ ko mën a liggéey ndax yéen ñi gis nañ ko de marché bi amu fi de rafet na loolu tubaarkàlla macha allah ku gis bëgg nga waaye nag nan ko defal ndànk-ndànk ban man see jot nag ci kattanu yàlla jërëjëf barke jàmm. yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen daral jàmm di leen baal wax itam ci teewaay bi ndax jamono ji tàng na lool xat-xat yi itam lool waaye nag xanaa ñu gàttal kàddu yi rek. gannaaw bañ leen nuyoo ñu ngi juutal si nuyoo bi xalifa général de Mouride sëriñ Sidi Muxtaar di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi te sàmm ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal ko sëriñ Touba mu eggale ko ñu ngi suñu mag suñu xalifa di sëriñ sang di ko ñaanal itam yàlla bàyyi ko fi te sàmm ko bu mu eggalee sëriñ bi ni mu ko bëggee woon di nuyu itam monsieur le maire Abdou Ka di ko jaarale ci adjoint maire di sëriñ Moussa Ndiaye ak ñi mu àndal ñëpp dindu nuyu itam Serigne Abdou Serigne Mokhtar Diakhaté mii nga xam ne kenn la woon sa kër gi te loolu kenn si ñu si njaboot gi ku ne mën na koo seere kon ñu ngi lay dalal jàmm di la jéggul itam toogaay bu yàgg bi di nuyu itam njabootu sëriñ bi ñi fi teew ñëpp. ak njabootu sëriñ maam Cheikh gi teg ko si loxol Baye Fallu di nuyu imaam yi fi ne yëpp teg ko si imaamu Lansar di sëriñ Sambaan di nuyu itam seex de quartier yi di leen dalal jàmm di leen jéggalu tim di rafet lu seen teewaay li waral woote bi nag mooy marché bi nga xam ne suñu way jur sëriñ Basiiru Saar jaamu sëriñ Tuubaa moo ko commencé woon si nekkam amoon si yéene lool ba mu jaraloon ko yëkkati xaalisam def si li waral yéene ji mooy quartier bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko ko joxoon ngir tolluwaayam ci Serigne Touba mu dëkk fi dëkkal fi ay taalibeem marché bii nag bi mu koy commencé Serigne Saliou Mbacké moo ko ci joxoon ndigal. ñaaral ko si président communauté rurale bi fi nekkoon itim di sëriñ Maxtaar Jaxate mii toog joxoon ko autorisation mu commencé ko ba yàlla defe ba yàlla defee la ko soob ci sëriñ bi ki mag ci njaboot bi di sëriñ sang jox ndigal sëriñ saalihu ne ko bu sañoon ñu eggale marché bi sëriñ saalihu joxaat ñu ndigal ne ñu xool leen nu ngeen di def bi eggale yenn sëriñ bi ñu woo sëriñ Fàllu Jaxate mi nga xam ne moom la sëriñ bi joxoon marché bi ngir mu tabax ko waxtaan ak moom ci lu mu waxante woon ak sëñ bi ak lu jotoon a dox ci seen diggante bu ñu leeralee lépp itam ñu ne ko bu ñu sañoon yaa koy eggale comme yow la sëñ bi doyloo woon ba teg ko sa loxo léegi liñ bëgg mooy ñu waxtaan nu ñu def ba continué ko li waxtaanee ba juboo ci ay kàddu ñu yox ko amaas mu liggéey ko ba mu agsi fii bi ñu demee ba mu agsi fii itam ñu egg ko sëriñ sang mu ne ñu bala ñàkk balaa ñu ko ubbi nañ ci laaj xalifa général de Mouride ndigal yëgal yëgal ko itim maire bu Touba di président di euh, Abdou kon mbooloo mi ñoo leen di yëgal ne lii benn bunt la ci liggéey bi darañ ko continuer ba li mu laaj lépp ñu def ko insha allahu yéen ñi fi teewal ah, monsieur le maire Abdou bu ngeen demee ngeen xamal ko ne ko ñoo ngi koy tàllal loxo si lu mu man si jàpp lañu si lépp loolu luy jëmale kanam marché bi mu def ko ndax marché bi li mu soxla bari na soxla na ay làmp soxla na tëli soxla na gaara sax bu ñu sañoon am ko ndax dem ak dikk bi yomb fi lool quartier bi quartier bi itim daanañ daanañ gis daanañ def chaque année ñu doon ñu ay làmp doonu ñu ay tiwo ndox waaye depuis ñetti at yi gisuñu gisuñu ko te quartier bi yitteloon na njabootu Serigne Touba gi lool kon képp kuy liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi quartier bi war na laa yitteel bu loolu jàllee ñuy sàkku yée yéen itim ñuy sàkku itim képp koo xam nga képp koo xam ne am nga place ci marché bi nga taxaw si ndax dafi borne rek bàyyi jëmalewul kanam marché bi yéen soxna itim ngeen xam ne maal bii liñ si def comme ni ko soxna si doon waxee léegi insha allahu lépp dana leen ko koo defalee waaye nag lépp rek ñu teg ko ci aw yoon ndax liñ si def jàpp nañ ne bu dee fukk la liñ si def si marché bi bu dee fukk la juróom yi dong lañ leen laaj juróom yi si des yépp dañ leen koy may loolu nag ñu si jublu mooy eggale yéen ay sëriñ bi ndax noonu la ko sëriñ bi bëggee woon kon yéen itim jaadu na ngeen xamee ko noonu place yi benn bu si nekk 75 la 75000 muy fukki junne juróom lan leen koy joxee ngeen amaas ci 40000 muy juróom-ñetti junni chaque weer kenn ku ne joxe junni ba keroog muy mag sa place yëpp benn bu ne 75000 lay jar juróom-ñaari place rek yaakaar naa moo si jar 100000 li si des mooy marché bi daa war a am garde maal bi itim daa war a am giri bay bay bay bay tëjee place yi place yi lu si yàqu dañ koy defaraat. ak yeneen ak yeneen loolu nag li leen si war yéen mooy bis bu ne juróomi dërëm si la ñuy fay gardien bi li war si marché bi lépp si leen koy def bëgg nañ ngeen xam ne maal bi buñ si noppee ku wàcc bu la neexee bàyyi fi say bagaas njaayu place bi nag insha allah suba lañ koy commencé kon ñu gàttal kàddu yi foofu rek xanaa di sant di gërëm ñi fi teew ñëpp di sant sëriñ Maxtaar Jaxate mi nga xam ne mi ngi gën a feddalee lim séqoon ak sëriñ bi démb ndax ku sëriñ bi doyloo woon la bari na ay kàddu yu mu daan jokkalante si diggante sëriñ Saliou ak sëriñ bi ñu ma ma seede si lenn rek mu ñëwee jamono bi ñuy sëriñ Saliou di wàcceel moom mii la woo woon boole ñoom moom mu indi ba si sëriñ bi wax ko li ko sëriñ Saliou wax lépp bi mu waxee ba noppi sëñ bi ne ko man de sama lépp sëriñ Tuubaa ko moom su ma wóoroon ne ñoom ñii su ma leen doyloo woon booloo nekk boole boole leen ak jigéen ñi si kër gi su ma demee Serigne Saliou dana leen tële tëye danaa ko defaat kon moom ñu ñu ngi ko sant bu baax di ko gërëm di rafetlu itam kóllëre gi mu seqoon ak sëñ bi ni mu ni mu euh, bàyyi mu koy bàyyi xel ba tey jii di sant itam monsieur le maire di ko jaarale si Serigne Moussa Ndiaye mi ko fi teewal ne ko boo demee nga xamal ko ne ko sant nañ ko gërëm nañ ko waaye nag am nañ yaakaar si moom lool na lépp luñ manqué woon si quartier bi bu ko xamee dana si taxaw kon ñu gàttal kàddu yi rek jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi di jottali sunu nuyoo xalif général des mourides sëñ Ahmadou sëñ Sidi Makhtar Mbacké di ñaan sa yàggal ko fi te àggale yéeneem ci dëkk bi ak ci mboolem taalibe yi ñoo ngi nuyu sëriñ Sang Sarr mi nga xam ni mooy njiital barab bi tey jii di nangu di nuyu rakkam yi nga xam ni ñoo fi ñoo ko fi teewal teewal fi seen bopp di nuyu itam ki nga xam ni moo fi teewal comité rural de Touba comité rural bu Touba ak muy Serigne Moussa Ndiaye ak ki fi teewal euh, lépp lu aju ci santé te docteur Sourang jiite ko muy Serigne Ndaw mi toog di nuyu chef du village su ak ñi koy jàppale ci liggéey bi. di nuyu sëriñ Fallou Diakhaté mi nga xam ne moom la sëriñ Bassirou Sarr tegoon liggéey bi ci loxoom di nuyu bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yëpp ak bokk ak soxna yi nga xam ni ah, ñi ngi teew ñoom ñëpp ah, di am mbégte mu rëy nag tey te mbégte moomu yaakaar naa ni ñun ñëpp ko am ndax lii day liggéey bu mag di liggéey boo xam ni dafa bàyyi ko ci ñu tedd ñu baax ñu kawe ndax barab bii ku ne xam na ni ci ndigalal sëñ Abdul Ahad la juddoo tegu ci loxol sëriñ Basiiru Saar mu tedd ma jaamu sëñ Touba sëñ Saaliyu Mbàkke ñëw dëgëral ko jàppale ko ci quartier bi kon bu fekkente ni bëggug sëñ Abdul Ahad bëggug sëriñ Saaliyu bëggug sëñ Basiiru Saar dañoo dem ba tollu fii war na noo sant yàlla bu baax a baax a baax war nañ cee sant yàlla bu baax ndax ah mënoon nañ ko bañ a teewee wala nu teewee ko te duñ ci doon dara waaye loolu yàlla tegunu ko kon nag war na noo sant yàlla bu baax te gën a nag ah, takkaat sunu laxasaay lin man ci barab bi lépp nu def ko kii nga xam ne wax na fi léegi itam muy directeur banque bi jigéen ñi war nañ koo déglu ndax yombal gi ñu bëgg ëllëg yaakaar naa ni kenn jiituwu ko ci mu war koo séq ak ñoom te ginnaaw dafa déplacé bi fii ci pas-pas ak yéene war nañ koo déglu bu baax a baax te déglu li muy wax te fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi lii nga xam ni moom la sëñ Modou Diop waxit chef du village loolu lu am solo la nun de bi sëriñ Saliou di door liggéeyub Guédrong bii te di ci am ay xalaat te ni dama bëgg goudron yëpp bàyyi ko ca quartier yi ca so quartier yu sori ya di dugg ci biir dëkk bi ndax agsi ci jumaa ji yombu leen agsi ci biir dëkk bi yombu leen nun tëli yi nga xam ne moo bàyyi ko woon ci jumaa ji noo ko natt ba agsi fii sëñ Bassirou Sarr toog na waxtaan ceeg moom mu bég ci lool sant ca lool te kii fi nekk tey de bëggug Serigne Saliou rek a dig bëggam xalaat Serigne Saliou rek lay xëy di wut ba jant so yaakaar naa ne bu fekkente ne am na dox nañ ko nañ ko war a doxee délégation bu wóor jóge fii jottali ko ko nañ ko ko war a jottalee yaakaar naa li ci bëgg lépp danañ ko am ndax loolu rekk a dig bëggam lu mu dégg ñu ni sëñ Saliou naaloon na ko wala bëggoon na ko rek yitteem lay doon te sëñ Saliou de ku ne xam na ni fii bu doon dund ba nëgë ni fii ay gadoro ngi kese lay doon te wóor na ma ni ak bëgg moom mii bëggam rek lay wut xam naa ni kon dana yokk ga dana fi defi gadoro dana fi yokk ndox dana fi yokk courant lépp dana ko def waaye nag sëñ Modou il faut nga ànd ak waa kër sëñ ñii siyaare ko wax ko seen bopp ak li ngeen bëgg ci barab bi lum ci yëg rek dana ko def man loolu xam naa ko kon nag noo ngi sant santaat yàlla ah di ñaax président communal bi nga xamante ni ah marché baa ngi ci loxoom di ñaax préfet di ñaax su préfet di ñaax chef du village bii fi nekk ñu gën a jàppale jigéen ñi te gën a amaat euh, góorgóorlu ci marché bi te jéem a euh, moderniser plan yi nga xam ni moom lañ war a def marché moom lañ war a tabaxee marché bi ndax ñi may tudd sax ah, yàlla bu nu yàlla bu ñu fi am yitte ndax waaye àddina lu ne da nga koy bàyyi xel ndax gendarmerie war nañ koo bàyyi xel police sapeur pompier ñëpp war nañ leen a bàyyi xel ak assainissement bi ñu war a def ci biir te loolu lépp maanaam moderniser plan yi ba mel na mu war a mel nga xam ni ku am soxla ci biir mën a at mën a am accès ci biir loolu it lu mat a bàyyi xel la. bañ a bàyyi rek kum neex tabax ak nu la neex tabaxee wut plan bu baax bu rafet kenn ku ne boo jugee boo tabaxal sa bopp ak bu fekkee commune euh, euh, ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi tabaxit ku jug ni nii ngay tabaxit fii ngay tabaxit fii ngay teg li ngay def fii ngay yem waroo cee yokku li waroo cee waroo def nii ndax sédd lu baree bari ci kanam kon nag yal na yàlla gën a àggale liggéey bi ci ni ko seen borom bëggee ndax moom góorgóorlu rek a nu war ndax ni ko seen borom bëggee moom faaw mu am moom waaye nag fekk nu ah, fekk nag nu ànd ci day sunu tawféex sunu feex la kon nag nan takkaat sunuy laxasaay te fas yéene fas yéene waxtu wuy mel na ko seen borom bëggee nun nu nekk ci biir te kenn bañu cee kenn bañu bañu cee jiitu du ma ko fàtte mukk ndax li ñu wax ni seen diggam ak Serigne Saliou Mbacké lu ñu ci daan dox rek man maa koy dox lu ñu ci masa dox maa koy dox sëñ Bassirou Sall doy loo ma sëkk bu ma ko masaa fekk ci këram jii nga xam ne ci la daan wéete bu yëgee ni ñëw naa man lay yendoo ba jant so mu soog maa yebal sëñ Saliou bu ma ñëwee sëñ Saliou ma yaakaar li nga am ci li nga am ci moom de kenn amu ko ci waaye noonu rek la mën a demee ndax daf ma sëñ Saliou daan wax naan bu ma doon seet sama xarit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg muy sëñ Bassirou Sarr lay doon waaw bu ma doon seet xarit dëgg dëgg dëgg sëñ Bassirou Sarr lay doon te lii nu yàlla teg yaakaaroon naa ni sax duñu ko teg nu bokk nekk ci wenn tund weer mënumaa gis mënu ma koo gis yaakaar naa doo mukk ci àddina waaye nag suñu xol yi de guddeeg bëccëg ñu ngi gise moom li nu war a waxtaanee ak li nu war a séqit waxtu dañoo ngi koy séq kon ñoom li ñu séq bari na lool kenn mënu ko fee tàmbali ndax dafa xat waaye tubaarkàlla ndax moom day daana wax naan waaye juróom ba bàyyi sëriñ Sarr daana wax bi fàttaliku sëñ Touba danaan ay sama sunu sunu jàmbaar ja ngor ga ak jom ja ak fulla ja rekk jar naan ak moom waaye nee na man nag bu may fàttaliku sama jàmbaar ji sëñ Saliou Mbacke dama naan ciy sama jàmbaar ja ngor ga ak fullu ga ak jom ja ak wëllëri wa wëllëri wa la ci daan dool rek jar na moom te sëñ Saliou nee na ba sëñ Bassirou Sarr di ànd ak man jekku na addinaam te ànd naag ñoo xamee ni bor seen barke doy na sëkk ndax booba nee na sëñ Bassirou sëñ Bassirou Mbacke mi ñu ko tudda jeexlewul dara baayam jeexlewul maamam jeexlewul dara baayam jeexlewul dara moom it jeexlewul dara ci biir taalibeem te nee na man yoruma dara mu ñëw takk ci man jàpp ci man ànd ak man nga xam ne daanaka barkeem sax ak ak ak ak ci laay bi waaye jëndiwu ma kenn loolu nag ku mel noonu kenn du ko fàtte sëñ Saaliw du ko fàtte mukk mukk mukk ci àddina sëñ Basiru Saar bu fii mu ne tiimul xabru sëñ Saaliw Mbàkke nee na ma mënumaa tiim xabru sëñ Saaliw Mbàkke ndi wóor na ne bi ma ko tiimee du ma dellu si te am na lu ma koy àggaleel bu fii mu ne tiima ko ba ni ma ko fekkee tiima ko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 xam naa ne guddi na timis jaa ngi bëgg a jot wax ji faaw ñu def ci itte dañ fay ñëwoon ci turu sëñ Abdou Lahad Ka mi nga xam ne nii daa bëggoon na ñëwal boppam ndax yëf yi lu ko ñore waaye sans borom dogal waajuram wu jigéen ci bokk ak moom lépp wàccab liggéey démb ñu nekk ci toppatoo yooyu ak màggal ak daaru Rahman bi taxoon nag mu ne ma naa ñëw teewal ko fii ak sama jëmm ju lott ji ànd ak sëñ Birane Gaye conseiller astafurlah ak sëñ Elimane Gaye Elimane Gaye conseiller ca commune ba ak sëñ damit mi ngi fi ñu ñëw teewal ko fi kàddu yi nii tàmbalee nag mooy gannaaw ban sante sëriñ bi sëriñ Saliou mi nga xam ne moo ballal lii lépp cee moonu féete fépp di sang euh, sant sëñ sang saa li nga xam ne nii tey jii mooy kilifa bi ak sëñ ak sëriñ Xaadim ci lii nga xam ne nii taxaw nañ ko liggéey bi nga xam ne nii dañoo amoon yéene pour sotal ko bi loolu amee dafa mel nii am na ñu fi jël ay kàddu kàddu yi yëpp rafet na dama ciy njëkk a jël rek ci benn exemple muy Serigne Fallou Jaxate ndax waa dëkk bi bi nga xam ne bi bëgg nañu marché bi taxaw jaar nañ fi ñu war a jaar jaar na ci loxo yi mu war a jaar sëriñ Fall mooy entrepreneur bi wax ngeen ko léegi wax na fi ay kàddu waaye bala may jàllee damay wax ne moom liggéey bi ñor gum ko ñoroon tax na man ànd naag man ay guddi ànd ak soxnam si di Cheikh Absa Ba ñu ñëw fii di ñëw ci terrain bi di xool chantier bi kon lim ci wax ne liggéey bi ñoroon na ko sëñ Muxtaar tamit waxoon na ko illa bi jàppoon na ko ca taxaw na ko kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant nag euh, sëñ Xaadim aussi ci kàddu yi nga xam ne wax na ko fi dégg nañ bu baax li nga xam ne li mooy jàngat yi jàngat yi mooy ñu gën a geestu Lansar ci loolu sëñ Modou wax na ko chef de village moom tamit ci direction boobu rek la waxee mel na ni am na yu baree bari yoo xam ne yi Lansar mi ngi koy xaar di ko xaar ci commune bi ci loolu war nañ cee jàpp sëriñ Abdoulaye nag dafa wax ne incha allah lépp loo xam ne ni kàttanam la dina ko déployer dina ko jéema a ànd ak yéen ci liggéey bi pour mu mën a réussir wax na ne bu soobee yàlla li nga xam ne mooy sécurité bi dana ci ànd ak yéen ñi nga xam ne def ngeen marché bi tamit fexe leen ba ci njëlbeen gi ñu teg ko ci yoon woo xam ne nii ëllëg dina noppal ñëpp ndax marché dafa ànd ak coow ce njëkk njëlbeen gi na ngeen koy fase na ngeen koy jàppee loolu mooy am jeexital jusqu'à kon nag na ngeen taxaw ci laaj seeni droit ci liñ leen war a jàppale waaye na ngeen may xelit yéen devoir yi nga xam ne nii war na leen ndax fii bale daraa mën a dox kenn ku nekk da ngay seet lay sa warteef nga nekk ci kon nag commune bi dégg na loolu dégg nañ aussi doléances yu amaa am solo ndax dafa mel ni sax loolu mooy frein marché bi ab dëkk su fa marché nekkee ci amul ay yoon faw mu am jafeñ-jafeñ bu fekkee tamit marché yi dafa am proximité ci ni ngeen ko waxee am yeneen yoo xam ne da leen a wër loolu mën na niru gàllankoor waaye nag loolu lépp ay waxtaan rek la yaakaar naa ne dëgg dëgg dëgg dëgg solution bi nit ñi bu ñu amee ay warukaay am fu ñu mën a dem am ay yoon ay tata niñ ko waxee ragal naa ne léppay dox parce que fi ne nii population bi moom am na fi ne fukki marché sax mën nañu jege ci kenn ku nekk danga nga liggéey donc loolu danañ ci jàppaat bu baax a baax a baax a baax a baax li ngeen ma waxit ci wàllu maanaam euh, euh, lamsaar ñu ne dañuy màggal ci Touba kenn ku nekk di jot cëram lamsaar jotu ci cëram loolu problème la bu soobee yàlla bu fekkee loolu ci wàllu commune bi la ñun suñu wàll danañ ko ci dox waaye nag dama jàpp ne nag loolu tamit am na beneen service boo xam ne war ngeen a waxtaan ak moom muy la gouvernance sëñ Maodo ragal naa ne foofu tamit piste boo war a explorer la ndax bu fekkente ne sécurité alimentaire la am na loo xam ne day jóge ca kaw xaw a tiim tuuti commune bi léegi nag am na loo xam ne li commune bi xëy na le mën na koo def mu jëm ci quartier yi loolu moom war ngeen ci laaj dama xamul nag li nga wax ci gan la féete wala ci ñaari wet yëpp la féete xam naa après nga gën ñu koo nga gën ñu koo leeral li leen li ci des nag mooy ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci initiative bi nga xam ne moo am Lansar marché bi ñuy ubbi tey ñu tudde ko maam Seynabou Lansar di waajuru ku baax ki nit ñi seen yaakaar war na cee dëgër jigéen ñii ni ñu toogi ku leen xool engagement bi noo am ak ni ñuy dégloo nit ñi taxaw nañ pour liggéey kon nag nañ nañ nañ ko nañ nañ nañ am coordination ak sëriñ Seck mi fi jóge léegi ndax fi mu ne nii développement ku koy def dangay wuti partenaire banque nag partenaire la waaye nag seen i négociation ak banque yi tamit day leen ko xool ci waxtaan bu baax ñu leen di mën di dimbali bu baax ndax am na ndimbal yoo xam ne yi day diis kon nag sëñ Modou lool tamit accompagner accompagner leen ci jigéen ñi pour que banques yi bu ñu leen di jàppale ñu jàppale leen jàppaleen woo xam ne bi dana woyof ci ñoom dana leen jural njariñ bu baax a baax seeni i bénéfice dina gën a yokk di sant nag ñëpp di siyaare suñu mag ju baax ci sëñ Matar Jaxate ñun mënuñu ko fay moo ñu formé lu nekk ci ñun ginnaaw yàlla ci fii moo ñu ci jàppale ñu ngi sant sëriñ bi di santaat bu baax ñëpp ñi nga xam ne ñu ñëw seq liggéey bi ak presse bi fàttewuñu kenn sëñ Mor Touré ko jàmbaare fépp foo xam ne fii ci Touba am na lu fa xew la am solo te ñun mën koo won ab jullit mën koo xool di kontaan boo xoolee sëñ Mor Touré gis ko fa donc la presse ñu ngi leen di remercier bu baax di santaat ñëpp alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf sëriñ Touba jasaaka yaa xillu راي مولاك خير الجزاء ومنى daarik awlaak jëf mbokk yi kon loolu mooy ubbite marché bi nga xamante ni bii seen sit internet Istikhama moo leen ko doon euh, indil ci Touba di gërëm bokki jullit ak bokki taalib ak kilifa yi fi teewoon yëpp di ñaanal Serigne Sang saar mu yàgg fi ak mboolem njaboot ak ba Bassirou Sarr waaye di ñaanal Serigne Modou Diop mi nga xamante ne moo jiite liggéey bi di chef de quartier Touba Lansar ak kilifa kilifa yi fa teewoon yëpp kon di leen jox dig daja ci yeneen jamono di sant bu baax a baax Serigne. Abdou Baaxe mi nga xamante ne bi moo féete woon ci caméra bi waaye sant nañ Serigne Moustapha Ndiaye ak bépp euh, équipe technique bu Istikhama point org wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.